tey jii euh, réconcilier également les Sénégalais avec les forces de défense et de sécurité le ministère de l'intérieur va en parler ak ki nga xamante ne moom la fa teg et quelle doit être tey euh, la procédure à suivre pour instaurer loolu yëpp tey jii au Sénégal. waaw ci seen ci seen euh, nu mu tuddati cinq cinq programmes yi cinq priorités yi en tout cas daf ci am mooy cinquième bi consolidation de l'unité de l'unité nationale loolu la bëgg mu mu ñëw ci nan lañ koy defee ta Euh, ñu dund fi quand même li ñu fi dund entre mars deux mille vingt et un à février deux mille deux mille vingt euh, il y eu euh, plus plus de soixante morts. nit ñu ngi compter pareeguñu ba léegi ils ne sont pas encore d'accord sur les chiffres mais quoi qu'il en soit il y a eu des dizaines des dizaines de morts euh, plusieurs blessés des familles brisées nan ngeen nan ngeen fas yéene defaraat cohésion nationale boobu fileeg. justice amul parce que les familles aussi réclament justice ñi nga xamante ni teg nañ leen ay teg nañ leen te tooñ nañ leen ñooñu ñi ngi réclamer justice te tant que loolu pour man loolu amul euh, cohésion nationale bi dañ koy wax nii rek mais du du du mos a am parce que euh, tooñ bi dafa tooñ bi dafa dafa kawe trop te nan ngeen nan ngeen fas yéenee defee loolu ak loi bi nga xamante ni voté nañ ko muy loi d'amnistie bi nga xamante ni day day day fànk loolu yëpp. dafa am lu ma gëm ñaar bi jiitu mooy. li président de la république wax li président Ousmane Sonko wax li premier ministre mooy vengeance du am justice mooy am. Mhm. loolu c'est clair parce que jàmm munta am sans dëgg am. Mhm. te dëgg pour mu am il faut que ñu leeral mbir yi loolu c'est clair. deuxième affaire bi ma gëm mooy dafa am lu ñu doon diingatee wala lu ñu doon ŋàññee régime bi fi jugee mooy ay nit yu nekk ci exécutif di immiscer wu ci pouvoir judiciaire wala ay nit yu bokk ci parti au pouvoir. wala coalition au pouvoir di wax ci justice nii la war a defee di préparer l'opinion wala di ah. joxe ay signaux moo tax je je me jeune je ne me permets pas de dire que suite bi nii lay demee parce que désormais je ne suis plus dans l'opposition je suis dans le pouvoir wax naa la li ma gëm mais du man maay wax kii nañu topp nii nañ koy toppee ñi def tel affaire wala tel affaire lii moo war a nekk seen sort dëkk bi am na président de la république bu bees fal nañ premier fal nañu gouvernement bu bees am na ku ñu dénk justice am na ay cour et tribunaux yoo xam ne ay professionnels ñi ngi fa muy magistrat muy greffier keneen ak keneen magistrat yi ñoo war a àtte di procureur ak ay juge lépp lu ciy cëru justice jàpp naa ne justice dina ko def mais en tant que militant du parti au pouvoir je ne peux permettre de dire ce que la justice doit faire comment il doit le faire elle doit le faire et quand mais day mhm. yéen da ngeen a voté contre l'amnistie muy tekki ni quand même leen ci. amnistie un excellent journaliste nag. waaw <laughs> mais du ma dugg de. da a voté da a voté en tout a voté contre l' muy tekki ni yéen d' leen ci amnistie bi nga xamante ni amnistie nañu ko fee wi de euh, yi départ février. Mm-hmm. Euh, deux mille deux mille vingt et un ba vingt vingt cinq février vingt cinq vingt cinq mars xaw mars donc pour justice am faaw ñu teggi amnistie boobu est ce que. bokk na ci seen mbébét ngeen teggi amnistie boobu. mënuma ci wax dara parce que dégguma si suñ programme ñu wax ne dañ koy tegg parce que bi ñuy bind programme bi amnistie bi amul woon lu dëgg dégguma président de la république wax ci dégguma premier ministre wax ci du dëgg est-ce que teggi amnistie kase mooy tax nga mun a topp mbir yi wala boo teggiwul amnistie am na yeneen méthode de contournement Hmm. am na tant que en tant que juriste yow yan yan méthode de contournement je ne peux pas moom laa lay wax <laughs> que damay anticiper ci loo xam ne rôle justice la te dañu bëgg justice am indépendance bu ñu demee ba justice war a communiquer man je ne crois même mais demee ba mu war a communiquer le parquet l' article onze du code de procédure pénale may na ko ci yenn cas yi pour bañ ñu divulguer ay information parcelaire sans pour autant nag ñu tooñ la présomption d' innocence may nañ ko mu communiquer. d'accord donc man euh, mënuma wax sur ces questions la franchement. interpellation bi ma def Ayoba par rapport également à la sécurité tey jii e gis nañu thème mu ren bi 4 avril. thème bi c'était la quintessence moo di réconcilier les Sénégalais avec les forces de défense et de sécurité ak li fi jot a jaar yëpp ak ñoom tey jii également zone yi nga xamante ne tey jii manque de sécurité moo tax amul benn stabilité bi amul benn développement économique bi dans ces zones effectivement parce que dañu jël consolide mooy cinquième euh, pilier bi euh, priorité bi muy wax. Mm-hmm. mooy consolidation de l'unité nationale cohésion sociale paix et sécurité. oui donc dafay mel ni kon pour jàmm am pour kaaraange am dafay fekk nit ñi méngoo nit ñi juboo ba pare dëkk bi unité bi war a am booloo bi war a am entre sénégalais yi. tout en mm-hmm. respectant la diversité religieuse ethnique régionale culturelle politique. ñu nangu ko ak pluralisme démocratique. oui léegi force de défense et de sécurité yi dafa am loo xam ne rôle armée la mais am na am na benn signal bu ñu joxe te ñu bëri interprété wuñ ko. la nomination du général Jean-Baptiste o Mm ministère de l'intérieur. Oui. c'est un gendarme. Oui. gendarme à l'intérieur. Mhm. parce que gendarmerie dafa nekk à cheval entre le maintien de l'ordre mhm. mais aussi la défense. bien parce que forces armées la bokk. en général ça a suscité débat même bu fekkee ne gendarme moo ñëw intérieur pour diriger des policiers. oui maanaam gendarmerie <laughs> mais gendarmerie mën na def maintien de l'ordre hmm. du dëgg. gendarmerie euh, fii même même même indi firange ci hmm, policier non du indi du indi firange man man jëluma ko optique boobu xam nga jël optique bi moo ko jëlee mooy c'est-à-dire. gendarmerie bu njëkk en zone rurale la daan nekk. wu mhm. nekk en zone urbaine. tout à ah. mais depuis quelque temps gendarmerie da nga gis mu am présence avec beaucoup de de brigades. Mhm. Mhm. yi nekk ci ay zone urbaine donc gendarmerie mën na jouer ci lu bëri ci maintien de l'ordre léegi li am solo mooy ministère de l'intérieur dafa am ay direction yu bëri sécurité moo ci ëpp solo. mais dëgg la CENI dina ñëw mais direction générale des élections mi ngi fi. relation ak sphère religieuse mi ngi fi. la direction de l'automatisation du fichier mi ngi fi. direction de la protection civile mi ngi biir ministère de l'intérieur sapeur pompier yi ci kan lañ dépendre. ci ministère l'intérieur. kan mooy gérer link bi ak parti politique yi ak association yi. Mhm. c'est le ministère l'intérieur. Mhm. kan mooy kan moo jiite le commandement territorial. c'est le ministère de l'intérieur. gis nga un militaire dafay caractériser wu par une chose non seulement dañu am compétence comme ñun civil yi mais dañu am rigueur. discipline dañu am rigueur. donc il faut pas réduire balaa ma ñëw sécurité il faut pas réduire le ministère de l' intérieur aux questions simples de sécurité question de sécurité yi kese. bu fa réduire ministère de l' intérieur léegi bu ñu ñëwee sécurité boobu dafa am loo xam ne dafa am ñu ñu fi teg te ñu war a renforcer. ay infrastructure yi permettre abriter ay ñu war a teg sécurité muy commissariat yi muy brigade yi loolu jàpp naa ne Sénégal at yu mujj yi def na ci ay effort il faut il faut poursuivre ça yokk recrutement wu personnel ba personnel bi gën a bëri il faut il faut il ñu yokk. seen gendarmerie il y a les ASP qui ont été mhm. insérés. foofu laay foofu laay ñëw foofu laay ñëw su ma ñëwee ci mooy maanaam dañu leen jox dañuy wax ci infrastructure yi. wax ci seen i équipement ak moyens d'intervention yi. après ñi ñëw ci personnel bi. Mhm. personnel bi. Mhm. qu'on le veuille ou pas sécurité du mbirum police ak gendarmerie kese sénégalais dañ ci am un rôle te seen rôle mooy la sécurité de proximité. seen réew mooy dans la sécurité de proximité léegi est-ce qu'il faut maintenir cette agence est-ce qu'il faut partir vers une autre structure mhm. mais la participation des citoyens dans l'effort de sécurité dafa am solo mhm. am na loo xam ne Sénégal dañ cee sooxe mooy les collectivités locales souvent amuñ benn rôle bi ñuy jouer dans la sécurité et pourtant ñoom ñooy siège ou représentation wu population yi à la base am foofu ay conseils municipaux am ay maires yoo xam ne ñu ngi seen i gox te ñooñu ci ci ci ci ci politique sécuritaire bi kenn du lañu ci impliqué donc loolu je pense que c'est c'est des défis mais euh, c'est une nomination boo xam ne rafetlu nañ ko trop te gëm naa ni euh, sécurité moom li ma wax rek yi jiitu noonu bu unité nationale amee cohésion sociale am jàmm am li ëpp ci sécurité rek la na li ci des kaaraange rek la. ko l'école d'une police municipale lan nga ci xalaat. police police municipale c'est xam nga c'est dans le code des collectivités territoriale mais. dëggal bi ñu ko war a dëggal loolu mu loolu moo des mënuma ci anticiper parce que xamuma lu luñ ci wax ak lan lañ ci war a def mais et puis je suis pas spécialiste mais li ma xam daal mooy il faut toujours euh, privilégier l'évaluation des politiques publiques la concertation avec les acteurs li nga xam ne moo gën pour sénégalais yi ñu def ko pour ñu am seen kaaraange ak seen quiétude d'accord Thioro ah, damay ñëw euh, feneen mhm. euh, donte ne priorité yi bari na mais euh, comme dañuy soog a teg gouvernement te gis nañu ne euh, alternance la ñu doon woote ba tey jii yàlla def ko am ñoo xam ne la dañ cee sóob seen loxo bu baax a baax muy euh, la diaspora euh, bi nga xam ne sénégalais yi dañu dañu wane seen bopp ci li nga xam ne moom mooy rupture bi ñu bëgg ñu gis leen nag ñoom ñu nekk ñoo xam ne nii dañ leen di joxoñ ñi bokk nañ ci ñi gën ëpp